Euh, feggoo ci ak suma ay frère muy euh, amicale des étudiants de Touba Ndorong fierté la ci man ñëw fekk fii ay jigéen ñu am jom ñoo xam ne groupement la ñu def ci koñ bi di liggéey liggéey bu mucc ayib te incha allahu rabbi ñii danañ leen sagal parce que ay jigéen lañ yoo xam ne bàyyiwuñ seen loxo depuis ma dugg ci sociale ba léegi nii lépp lu may def incha allah dama leen ciy bàyyi xel looloo waral tey ma ñëw indi leen masque yi nii joxleen tuuti lu ñu naane café li nga xam ne nag moom laa leen di dig mooy bu soobee yàlla ndem neex na yàlla dinaa am benn financement boo xam ne dinaa leen ko may te financement boobu ma leen di may noonu duñ ko rembourser ñoom ñu xool nuñ koy koree ci seen biir. sama liggéeyu bopp la sama jomu bopp la parce que dama gëm Touba Ndorong gëm ne tey man maa leen war a jàppale looloo tax may def ay effort guddi ak bëccëg surtout groupement yi nga xam ne ñoo nekk fii du ñu am financement. du ñu am financement kenn du leen jàppale nit ñi dañ fiy jaar di leen nax wax waxi politique nag. waaw waxuñu waxi politique nag mais dañuy wax li nga xam ne moom moo fi nekk parce que tamit kenn gën a ñëw dëkk Touba Ndorong fi la ñu juddoo xam nañu réalité yi yàgg lañ leen dugal ci ay kaar di leen yóbbu di leen nax yàgg lañ leen a jël di leen fanaanloo ci ay mbedd di leen nax léegi nag seeni i doom màgg nañu te loolu dinañ ko dindi ba mu set wicc lépp luy social dinañ ci ànd ak yéen guddi ak bëccëg waaw looloo tax tey ñu ñëw ànd ak sunu ay frères ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk amicale des jeunes étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Touba Ndorong loolu nag di ak dolleeku de plus parce que depuis Ndorong di Ndorong ba léegi nii ñu ngi door di gis amical boo xam ne c'est des étudiants yu conscients yoo xam ne dañu ne dañ leen rejoindre ci mouvement bi ànd a yéen ci biir loolu ñoom sax am na ay dons de masque yoo xam ne incha allah dinaa leen ko jox ñu yóbbu ko Sengane Badiane ak Mansour Ba ñu ngi nii teew daanaloo ay kàddu nu mu ko waxee noonu la Touba Ndorong yàgg nañoo seetlu ne depuis ay années ak ay années bu ñu juddoo léegi mosuñoo gis Touba am ay leader yu taxaw di xeexal jeunesse bi di xeexal suñu yaay suñu parents yi. kon loolu fa nekk défi si képp ku nga xam ne juddoo nga Touba di jeune rawatina ngay étudiant ñu ne ñu xamal leen taboo leen ngeen di ay intellectuel ñu participer à la formation de jeunes Ndorong. mais aussi di participer si action sociale yi demee nii looloo tax ñu fekk si tey suñ mag Ousmane Thioune plus connu sous le nom de Djimane mu yàgg kaa def parce que ce n'est pas la première fois yàgg nañ séddal na fi ceeb yàgg nañ ka gis période élection yi mu ànd ak ay moroomi jeune am di taxawal Touba Ndor. vraiment kontaan nañu parce que comme ni ko Baye Ousmane waxee ni nga ko waxee tamit ndax euh, fii lañ dëkk Touba te lépp ñu fi waaye lu ñu fi mun munti am euh, baay Ousmane mii tamit jàppale nañ ci lu bu baax a baax a baax ñu koy woowee jimaan parce que ñu ni tamit awuñu lenn bu dul suñu Touba Ndorong gi te ku ñu jàppale rek ku ñu bëggal suñu suñ Ndorong gi rek la ñu wax te macha allah moom mus ko defee politique ndax dafa jël muy jeune tamit macha allah parce que tamit euh, xale la. te mun mënoon naa def comme yeneen jeunes yi mais dafa ñëw pour jàppale Touba Ndorong te du koñam kese de fépp nag fu ñuy wax Touba Ndorong la jëm ci ma ba fii rek mu ngi koy jàppale te ñu ne ay xale lañu ndax tamit ñu ne ñu ngi def suñu mbootaay bi te mbootaay bi ñuy def nii pour ñun suñu suñu morom yi pour ñun jàppoo doon benn ñun waa Touba yi bon ñu tamit euh, bëgg nañ tamit lépp luy ñëw fii ñu ciy bàyyi xel ndax bu dul bàyyi Ousmane rek bon kenn bàyyiwuñu fi xel ndax moo ñu ciy jàppale lii di ceeb lii di suukar moo ñu ciy jàppale weer koor gi nag sonnuñu dara parce que métti woon na trop ci coronavirus bi moom it jàppale nañu bon nag tamit nañ ñuy boole ndax ceeb bi ñuy wax nii amuñu ci dara Touba Ndorong gii amu ko ceeb bi diw bi ñuy wax ci wóoru Macky Sall bi amuñu ko bon nag bëgg nañ kuñ ci jàppale parce que amuñu leen bu suñu Touba Ndorong gi te kuñ jàppale ñu jël ah waaw